أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله حق حمده الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء الحمد لله بعير المنتهى الحمد لله في كل مكان وفي كل زمان الحمد لله الذي لا نعبد إلا إياه عدد ما في علم الله تعالى الكريم حمدا دائما بدوام ملك الله العلي العظيم الحمد لله ذي الجود والكرم الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات الحمد لله على التيسير الحمد لله حمدا فوق حمد الحامدين الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء والحمد لله الهادي البصير الذي وعدنا بالإجابة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 amul génn xasida goo xam ne da nga ko jël joxul juróomi bayit te gisoo ahmaduhu ashkuruhu shakartuhu hamdi wa shukri ba mu ba mu jeex kon waruñoo tàmbali lenn te sant nu yàlla feeñal ak cant rek loolu jàllee nag ñuy siyaar ñi fi nekk ñëpp di ko awee ci kilifa barab bi ñaan sunu boroom sunu daje bii doon sunu pajub aajo yow mun a yàlla yàlla na ko yàlla def kenn ku nekk fi teew am nga yitte joo xam ne kenn mënu koo fekk yàlla mi ne moom sàkkunu te ñu war koo jaamu bañ koo jaawale kenn te xam ne moom moom nag te bokkunu kenn moom mi nga xam ne nag dafa dañ kumpa xam ne kenn ku nekk ñun ñii la nga yitte woote mënoo koo ñàkk te mënoo ca dara moom mi ko man yàlla na ko ne cas na ko tegg suñu loxo yi te jox na lu faw ko njort te boole nag ñoom nag sàmm lu mu mën a jox lu mu bari bari bari bari yal na lu booleeg moom sàmm ba duñ ci yàq duñ ci yàqule duñ ci yàqu. yomb na yàlla yal nañu ko yàlla defal barke Xaadimu Mustafa nit ñi ko sëñ Issa waxee nag noonu rek la moom ci Jaalibatul Maraaqib dañu xamante bind naa ko lu war a mel juróom-ñeenti yoon suñu saali mu ne fa Allah barakaati jox naa ko ci ay yoon yoon ba sunu jamono yi tey jii ba ma ko joxoon sëñ Alaaji Buso la ko jox ne ko dee ko jàng bi si bu ne kon mu ngi daw ba tey. lépp nag boo fekkente dañ la caa woo ne bëgg nga waxtaan si day fekk xanaa nga xam te lëf wala boog ña koy wax loo yaakaar na xam nga ca dara waaye ñun xamuñu fi dara ndigal nag bu xasee bu jug aw ci ñu baax ni waaw kon ñu ñett ñett rek bëgg naa xasida gi nag moom ndax 74 daa ko tàmbalee jàng ñu naan ma lii de booba tuut tànk laa ñu naan ma kii kat gone da ko jàng loola def ma ci aal tere bi ni ma koy bëggee tere def ma ci aal ma di ko faf jàng déngam ay yoon yoon ci bis bi la ma ci jëloon it mooy Serigne dara luy lor ku ci loroo yaa ko lor sa bopp waaye Serigne Touba sunu jamono tey jii yàlla defit ma bind ko ay yoon yoon yoon dem naa nag bu ma daanaka sax jàng geneen xasida maa ngi ci jégguloo waaye nag xasida yëpp benn boo ci jàpp te sellal ko yeneen si des yëpp fekk si la li tax nag moom dong lay jàngit nag sëriñ tuubaa mii boroom loolu kat mën na koo wax fii ndax këram te ay dongom rek a fi nekk. feeñu ma jiite na ñaari rakka Fatiha na alkaafiruuna Fatiha suuratul Ikhlaas ba pare ne ma ko jab ne ma dee ko jàng loola soob bu la neexee sax jaayal. dee ko jàng loola soob joojee nag moo waral samay dongoy bopp yi ma sëriñ bi booleel dama leen koy jox ñu di ko jàng te di ko mokkal. bu la neexee jaay ji ma di ko defar ci sama wërsëgu bopp léeg-léeg ma defar ci 1000 léeg-léeg ma defar ci 2000 léeg-léeg ma defar ci di ko joxe ngir jëm yàlla ji di koy ko jënd yoolub yàlla na xam ne sunu borom waxuma poñetum àdduna bi sëriñ bi ba mu naan moom bu la neexee jaay damaa defa ne yoolub yàlla la ma dem nañ ba ci biir nag ba li ma koy defaree ak couleur bi moxtaare ba sama bàyyi ne sëriñ bi de waxam des gannaaw xam naa ne doo ci laaj kenn lu koy waaye nag génn xasida gu ne la ci dem ci këyit ñu defar ko sañu ko laaj di ko màggale waxu suñ Tuubaa boo day nuru jaay waaye du doon jaay sëñ ma jën jobbeet di bàyyi ci man fu ma nekk fu ne mu fekk ma fa wax ma ne yoon wii aw ma ci maam bàyyi laa ci am sama bàyyi àndoon ak Sëriñ Tuubaa 1904 ba Sëriñ Tuubaa bindee xasida gi ca gànnaar saa bàyyi nee na la ko jox Ibrahima Dieng mu war ko indil dégg nga maam Cheikh Balla jën Dieng ci Daaru Dieng ca Bawol xam naa bu ngeen dee dugg ci internet bi da ngeen gis xas euh, waxtaan bu mel noonu yi yooyu du ma ci sori waaye kan ba ko sëñ Tuubaa joxee ne ko na ko yóbbu ba mu ne bëri dugg di dem sëñ Tuubaa da ko fettasu ñu wax ne sëñ Tuubaa bu mosaa fettasu day mel na ko tàccu nga ne mën a tekk mu ne ko bismillah Ibrahima ndax xasida koo yi xam nga martabaam yàlla mag ñi nag danoo defar woon du na ko déedéet baa man de xaw ma ko ah Mbàkke ñoo ngi bëgg a xam de ko ah kay xasida gii de martabaam toll na ci fii ba bëggay àgg daaru jëm ca Bawol armeel yi ñoo fi romb kun doon mbugal di ko defal ay tiis nee na danañ ko dakkal ba bis ba dellu si déwén sa bu fekkee te ne keneen ko mel na yow yor xasida gi jaaru fa xasida yi nag liñ ci mën a nettali ci xisa bari na waaye tey jii dama tànn wax li Sëriñ Tuubaa waxal boppam yàlla xam na ne tey jii su fekkoon te ne xisa yi rekk la te xisa yu wér lay doon ci Jaalibatul Maraqi dawe na sëkk waxtaan bi waaye ñeen ñëw fekk fi ay kilifa ñu war a waxtaan am leneen loo xam ne duggoon na ci muy ñaan bu am solo gi ñu fi ñaan ak alxuraan gi ñu fi jàng kon jot gi duggut kon maa ngi ci jéggalu su demee ba ci biir sax ngeen gis ma xaw a réer ci kii ngeen ngeen jéggal ma ko rek te xam ne li ma naroon faaw rek ma jën koo gàttal te boo gàttalee nag faw nga xaw a kër gi càmbar suuf kon di ko jéggalu bu baax a baax ki nga xam ne nag moo bind xasida gi kooku mooy xaadimal Moustapha Ahmed bun Mouhamed bun Habiballah Mbekki nafaana allahu barakaatihi lan ñoo la tas ci barkeen kenn mënu koo fay yàlla mi ko mën a fay yàlla na ma ko fayal ndax koo xam ne ànd gi ànd ak moom moo nu tere dugg sawara moo ko waxal boppam bind na ko kooku moo bind Jaalibatul Maraam moo bind xaside yépp e, yi ba ci bëgg a indi bu leen jàpp ne sëñ bi rawatina kilifa yu baax yi toog danaa fi wax lu ngeen xamul ba lu ngeen mustu dégg dafa fekk te nag ay jullit bu nu toogee war na ma fàttali konte te tekk gi ñu ne tekk yi di déglu waxi sëriñ bi am na malaayka yoo xam ne ñoo ngi ñu tiim firi seen i laax naan allahuma axfir lahum allahuma arhamhum yàlla jéggal leen ñu ci yërëm leen te amul kenn koo xam ne kon da jóge ci barab bii dese benn bàkkaar wala ngay dem te yóbbaale wu yërmaane suñu borom xam nga lu ko waral ñi koy ñaan duñu mooy yàlla mooy malaayka yi laa yaxsuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun ñooñi duñu mooy mukk seen borom te lu seen borom digal ñu def ko gis nga ñi ñii nga xam ne ay doomi aadama lan di lekk ci ceeb bii ak ndawal gii bu nu góorgóorlu ba bañ a yàlla saa ñu ne yaa allah sunu dékk yàlla sunuy sunuy loxo munoon a abdi yàlla sama borom sama jaam nga ne ko asaluka maa ngi lay ñaan mun la xustee li nga ñaan kon nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax ba téye cër yi Cheikh Dafal sama turandoo daal na wax ne Baye Fall xam nga Baye Fall du dara mooy murit saadix rek murit saadix parce que Cheikh Ibrahima Fall taalibi kon dafa dikk pour wane lan la ñu jariñoo ci Serigne Touba da nga koy bëgg bu la woo nga dikk su la laajee nga jox ko léeg-léeg nga jox ko bala mu laa laaj boo juree tudde ko boo la xeeb ak jooy léppam gënal la sa lépp ak njabootam gënal la sa njaboot yitteem gënal la sa yitte ngay góorgóorlu nag nee na di tudd yàlla guddi ak bëccëg suba ak ngoon téye sa cër yi ba doom mooy yàlla di liggéey di jox ku baax yàlla kenn da koo gisul mu toog fii nga ñëw naan ko ba loxo da ngay seet ku la ko gën a jege fopp nga ñëw waaf fa dàq ko fa mu fekk la fa baa nga fekk ko fa kon kii nga xam na mooy xaadimul Moustapha te bind xasida yi wax ne qasaidi min mucjisaati almuntaqa salla alayhi man hadaahu wattaqa mucjisa kéemaan lañ koy firee karaama kéemaan lañ koy firee waaye bu dee benn kiimaan bi bu ko ab yonent defee mu ajisa lañ koy tudde bu ko wëli wi defee karaama lañ koy tuddee Serigne Touba nee na sama xasida yi karaama yi yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ajisaam la dellu wax ne kitaabati faaqat suyuuqu tarbiya wa kulla xayran wa suyuuqu tarqiya sëriñ bi nga xam ne moo leen daan jàkk téy la defar la ba nga yaru xam nooy tooge yow dongo bi xam nooy solo xam nooy waxe xam nooy xoole xam nga fu mu la jëme ci ku tedd la la jëme kilifa gu mag la la jëme te kenn du fa dem te yóbbu am yar Macky Sall dong bu xooloon xale ñu te 15 yi xool di nga man ka fa nekk te te jiite gone ya mu mun na leen nga ko yóbbu ca Macky Sall da nga wax ak moom ñoom xale yi ne leen boo demee na ngeen jarul bu leen fa bëre bu leen fa saagante bu leen fa ba ma xante ya ngeen di gis ñu teg ko noonu muy woto yu ndaw yooyu dégg nga ma mëbb na ba ko kenn laal doo wax ak ñoom bala ñoo dem sëriñ sii danoo xam yàlla te saf te xam yoon wi moo waral bu ñu lay tërbiya dañ lay yar ba nga ne noot ba noppi mu jox na ca sa loxo bii yéegi jow nag ci maratib tarq yàlla léeg-léeg ñu jox la turu yàlla nga di ko jëfandikoo nga dem bu jàkk ñu ne la jàkk xam na yaa ngi dox ñu ne la indi boobu te jël bii xanaa thèse sax ko koy bind da nga am directeur de thèse mu naa la demal bibliothèque sàngam demal si téere sàngam ba bis boo dikkee benn thèse bi dégg nga ñëpp na fa tabaarakallahu rabbal alamin kon sëriñ si li ñu bëgg mooy defar ruu yi ba boo ngay defaree buñ la jàppee noonu nag yóbbu ba ca kaw ba nga tas fii dañ naan dañuy dañ lay bàyyi. boo ne ci dégg ëtt bii yow yaay tàmbali tërbiyee gaa yi kon nag nañu góorgóorlu ba sang su baax si li ñu bëgg ci ñun ñi ñu am ko ci ñun mooy ñu jag rek ba bay jagale jag bay jagale. suyuux yi nga dégg yëpp suñ Bamba seexal yéen da leen defar ba doon jàpp waaye fu ñu dem jagale loolu nag fii yoonu moo tax dox loolu di am mun fee ñàkk kon nañ leen yombalal mbir sëriñ bi wax na nag sëriñ ba man loolee sama xaside gi mën na lu ëpp loolu fopp ba pare dëxañ ci nag ne yëpp yiw nag ak yëpp yiw sama xaside yi weesu nañ loolu ah daal di waxaat ne xasiidati faaqat xasaid al kiram wali taquulu abadan xayral mara gaa ñu baax ñi daa doon bind ay xasaid yu baax lool waaye sëriñ bi nee na si ñi man yi ma bind foofa na ko jaalibatul maraqib xam nga sëriñ bi bi muy jëm ci géej gi dafa bindoon jaalibatul maraqib yóbbu loo mawaahibu dégg Cheikh Moussa Ka di ko nettali man nag boobee man boobu laay jàng ndax bindaan na ko ay yoonu yoon am na ay bayit lu war a juróom benn ba juróom-ñaari bayit ñu ngi ciy faral di dolli waaye njaal benn ko moom 530 bayit dong la woon ko laajee sëñ Fallu Mbàkke na ko naka mu mun a rasuli ja waay rasuli ja waaw afdala rasuli bi mujj ci xasida bi ra cent la siin cent lan 30 soo ko boolee muy 530 bayit nee na ak xasida ji 530 bayit la ma gis bu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke taw sëñ Bamba bu njëkk a toog liggéey liggéey bu rëy moo ko bind ci loxol boppam benn bayit la ca dolli te dana wax ne suñ bambaa ko làqoon moo ko bokkoon muy wam xu chaqawatan nax ni yaa alim wajal fuwaadi yi madinata ulum sëñ Hamsatu Jaxate mu mag ma nga xam ne dégg nga maam moom la ñu duppee setam bi fii mu am ci xasida gi lu rëy sunu borom defal ko ci lu rëy rëy rëy kenn du tudd xasida gi te tuddoo ko yàlla fi yàgg moom téwér ak ñëpp rek noonu yi la ko man bi ma doon jàngee 74 ma wax leen ko léegi 530 bayit la moo tax su ma koy bind noonu foofu laay yem du ma ci doon leneen waaye keneen ku gis yeneen i bayit nañ ko jàngale sëriñ bi daan def noonu ndax bind na ko bindaat ko bindaat ko xasaay jël kiraam nag ñu woon sëñ bi roy lu baax baax na lool imaamul Jasuli moo bindoon dala ilul xayraati te dëkkoon fii ci Irbel sëñ Bamba dëkkoon Jurbel imaamul Jasuli dafa bind xasida gi ñu koy wax dala ilul xayraati ne su fekkente ne liggéey bi may liggéeyal yàlla sama borom nangu na danaa ko sóob ci ndaali bu mu far bu mu tooy bu mu bind mi raaf nes kii si mu seppi ko mu mel na meloon mu xam ne liggéey bu mu doon liggéeyal yàlla nangu na suñ tubaab ne maa ngi toppandoo ji zóoli daal di bind jaalibatul maraakat sànn ko ci géej gi ñii ne ci dex gi ba mu mat ñeenti fan space gendarme wu tudd sa masaxal dañ ci baxaru xal soow moo ko far indi ko ne bagage yi gis kenn waru ko moom ku dul marabu bii bi di nekk ci tefes gi buñ ko indee sëriñ bi xool ko mbind mi farul raafal tooyul moo xam ne liggéey bu mu doon yàlla nangu na liggéey bi nag mooy ndax jumaay njaareen ji danaa ko àggale di ko jiitalu yàlla ndax jumaay Touba jee ma fiy bàyyi dees na ko liggéey bu mu àgg ñu siy julli ndax Touba jii danaa ci jot ba pare ne nga maam muy màgg di wéy rek ndax yoonu murit day dem rek ndax dongo yii danañu mel ni ma bëgg ndax xasida yii sunu borom bi nga maam dana ko nangu ndax mbégteem rasulullahi mi nga xam ne dama ko bëgg a ci diine islam ak jullit ñi ndax dana sotti keroog ci xasida gii danoo wax ne liggéeyam bi moom la saytu ndax ko su ko jébbul seen araamal na sa waraan déet ndax sama taalibe li mu ci ñaan ndax dana am déet te lépp ñaan na ko sunu borom mu may ko bépp taalibe boo xam ne yaa ngi siisante ak a boddante ah ak naa fekk dugg ci yow xamal ne yaay tuddoo sëriñ waaye yow nekk goo ci biiram ndax kat Sëriñ Tuubaa dafa ñaanta lim ñaan yàlla may nag ko wajal qulubana ala tawaddudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaaqudin wala tanaafuri xataa nasiira muslimina xaashiin wa muminina muxlisina saalihin nanu bëggante soppante wóolonte doylonte lu nu am bokk ko képp koo xam ne nekk goo ci lii nag donte yaa ngi def mbubb mu rëy lisan bu mu mii di ràcc ràcc dégg nga am dugg goo ci biir ndax Sëriñ Tuubaa li na ba noppi ñu bëgg nag tàbbi tuuti ci xasida gi te mu bëgg ñu xam kiy wax kanam mooy Xaadimu Mustafaa mi borom xasida gi ñu bàyyi di déglu ci mbedd bi keneen ku bokkul ak Sëriñ Tuubaa bëgg laa tiitloo ba nga bàyyi xasida gi bëgg laa tiitloo ba dootoo ko jàngati Sëriñ Tuubaa def na ci ñaari téeméeri turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak benn 201 201 nag soo ko xoolee ci asmaullah yi mooy yaa naafiu ki yore njëriñ tey jëriñe waaye ba tey mooy yaa muaafi ki yore jàmm tey jàmmale ñu bëgg a dox sa digganteeg lii Sëriñ Tuubaa wax ci boppam ne maa ngi ñaan yàlla sama borom xasida ak jaalibatul maraaqib jii xaraf wu ci nekk. la doon mbégteem rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxuma paas bu ne waxuma bayit bu ne dafa wax ne xaraf wu ci nekk na doon mbégteem rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu am na maktub lahu adad hada nadmi xurufa ah adadihi busharatan xaalit xaalidatan abadan amin ya rabbal alamin te si tubaab moo ko ci tegal boppam moo ne amin ya rabbal alamin sëriñ Muntaqa mii nga xam ne yàlla na fi yàgg dafa am lu muy jàngal nan la ñu jëriñoo ci sëriñ bi fab magam ji rek dal ko rek doonu dongoom ñun ñëpp ñu ñuy jàngal ak taalibe mokk gunu nag ñun wax na ma lii may bëgg a nettali ñaari yoon wax na ma ko ca Pout ndax dama ko faa fekk doon ko siyaar waaye wax na ma ko ca Touba ndax dama ko faa fekk doon ko siyaar mu ne ma sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana wax na ma ne ma Serigne Touba nee na ko xanaa lii leer na xasida jaalibatul maraaqib bi ma koy bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàkkaarloo man di ma muuñ rek daa jàkkaarloo man loolu mooy mbégte mi loolu mooy mbégte mi Serigne Touba ñaan te yàlla may ko ko te monsieur Mouhamad Lamine Diop Dagana du neenal dara Serigne Touba Serigne Mountakha mii du neenal dara Serigne Mouhamad Lamine Dagana mi ngi wahab li kulli man yaqra'uhu saadatan wa barakatan wa aafiyatan fi daarayni amin ya rabbal alamin sëñ sëñ Bamba ñaan par ne amin xamuloo mu ñaan foofu sunu borom képp koo xam ne yaa ngi jàng xasida jaalibatul maraaka na nga texe àddina ak alaaxira na nga am barke àddina ak alaaxira bu liitoo woo ci kenn lenn loo bëgg na nga ko am hmm? waaye nag lim ci teg nag mooy jàmm ji gën a rëy mooy mu aafiya mooy aafiya noonu ma ko defal àddina ak alaaxira ana ko bëggul lii yàlla na ko yàlla jox li tax yàlla dañu ko jox nag mooy di nangoo jàng xasida gi sëriñ bi wax ne samaytuha jaalibatal ji fii aajilin ka aajilin lir raaxibi man sëñ Cheikh Amadou bàmba maa ko tuddee nii képp koo xam ne am nga looy xamante yaa xam objectif la wala ambition nga am lii tax da nga am nga daagoo na ci tekk sa loxo jël ko te kenn du la dab ne la indi nee na mooy xasida gi moom laa ko tudde li nga bëgg sa borom bëgg ko ci say morom àddina ak alaaxira nee na da nga maam gi moo ko ñor di teg ko sa loxo li tax nag may waxee nii dama bëgg ñu gën a fonk xasida gi te xam ne waruñu déglu kenn ci xasida gi ko ku dul Serigne Touba mi nga xam ne dégg nga maam li mu ci wax lépp dafa mel def nañu bismillah boo jàng xasida gii nag am na benn aaya bu gàtt bu nekk ci alquran Sëriñ Tuubaa jël ko te aaya bi li muy gàtt gàtt kat ñetti mbir laa ci gis man sunu borom xamle na ci woote na ci digle na ci muy baag auzu billahi mina sheytaani rajim inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wasallimu tasliman yàlla mi ngi xam ne ne man ak sama malaaka yi ñoo ko julli ci ku tedd ki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ab xamle la woote bi mooy yaa ayyuha alladina amanu ñun ñi nga xam ne dañoo gëm ñu daal di dikk ne groupe xanaa ku la woo bëgg a dikk bu la joxul wax la sunu borom nanu sallu alayhi wa sallimu taslima ndigal laa ngoom ndekete booy jàng jaalibatul maraqat yaa ngi ci ndigalul sunu borom ndax yaa ngi ci ay salaatu ala nabi yoo xam ne yàlla ci boppam moo ko wax ci alquranul karim bi waaye nag salaatu lu mu foor foor foor foor foor mi dugg ci biir ndigal yàlla bi mooy sallu alayhi wa sallimu tasliman boo nee allahumma salli ba mu àgg te wa sallim nikku ci kon ba tey dafa mel ni ndigal li des la am de sëñ Bousso sallu alayhi wa sallimu tasliman la wax moo tax sëñ Tuubaa fu mu ne salli wa sallim tasliman wala wa sallim kon nag nan xoolaat dégg maam salaatu yi fi nekk yépp ba xam looloo nga seen di ndigal li dëgg dëgg dëgg mooy sallu alayhi wa sallimu taslima kon boo ko boo ci nekkee yaa ngi ci ndigalul sunu borom te ndigalul sunu borom nag moom mooy mooy nekk ci moo ñu tax a fii ak fu nu jëm nag sëriñ bi wax nag ne waj al li wajhikal karimi xatt yi barakatan lil wisri zaata xatti sama mbind mii de barke bu landi laa ci bëgg na ci nekk te bakkaar yi nay sippiku ba jeex tàkk mu dellu wax ne wajal bihi nadmiya fawqa sawmi wa gayrihi min maaniaati lawmi sëriñ Bousso wax na ko léegi dugg na ci weeru koor te weeru koor alsawmu lii wa ana ajisi bihi yàlla nee na maa moom koor maa koy fayal saa bopp du ma yable du ma yundi ñu dellu wax ne inna anzalnaahu fi laylatil qadri wàcc naan alquran ci biir laylatul qadar te kat laylatul qadar bu ngi ci weeru koor ah xayrun min alfi shahrin jooju yi ñuy wax kon génn guddee ngi ci goo xam ne moo gën junniy weer junniy weer soo ko calculé ëpp na 83 ans nga am ko ci génn guddi sëriñ bi wax ne wajal bihi nazmiya fawqa sawmi wa gayrihi min maaniaati lawmi ñu dellu wax ne fi ba fi jannati baabun yusammaha baabu rayaan laa yadxuluha illa saimun biir àjjana bunte nga ca boo xam ne ñi daan woor doo nga ciy dugg ku daan woor de man ngaa dugg beneen bunt waaye bu ñi daan woor donc ñooy aw ci bunt boobu yi ba tey ci importance weeru koor wi ñu ne aj aji woor ji dana am ñaari mbir te yu rëy kenn ku ne xam na ne koor baax na waaye nag ndogu neex na ne leen wax nga dëgg waaw waaw te te bu te bu waxtu jot ndogu jotee dëgg bëgg lool waaye nag mbégte mu réy mi nag mooy waxtu bi ngay jàkkaarloo sa borom nag mu lay fay koor gi nag sëriñ bi wax ne xasida gii yool bi ci nekk nafoo ko yoolu weeru koor waj al nazmiya fawqa sawmi wa gayrihi min maaniaati lawmi xam nga luy maaniaati lawmi loo xam ne doo day tax doo am gàcce ëllëg sa kanam borom mooy xeetu jàmm yàlla yépp jàng alquran li muy foor foor foor dem Makka julli julli juróom weer weeru koor bi Serigne Touba ko ñaan nee defal ma ci xasida gi yool bopp yool bi nga xamee ne nag indi na aaya boobu ne inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu ko nag kon nag fa sàmma te kenn ku xam mbindum Serigne Touba war ngaa mii faaw rek bi moom du fàpp du tuuti di bu tàmbalee rek dootu jeex ba biir àjjana fa sa ramadan salli wa sallim yaa karim anni alayhi wal taqut lii ma arum faaw rek yow sama borom maa ngi julli tey seen mel ci Muhammad boo defee salaatu ala nabi def ak ñaan sono borom du nangu salaatu ala nabi gi bàyyi ñaan gi moo tax toujours di gis sëriñ bi fu mu defee salaatu bu gu mel noonu tofal ci ñaan xam nga mu ci wax wal taqot lii ma aram ay nga la waay sama borom te nag xoolal li ma bëgg lépp nag jox ma ko moo waral ñu nekkoon boo booy jàng xaside gii li nga bëgg ngay am jàng ko yàlla yombalal képp ko xam ne nag bind nga bu góor wala bu jigéen wala ngay muslim bu góor wala bu jigéen wala ngay muhsin soo ko yoroon tasawuf di góor wala jigéen boo ko yëgee boo ko yëgul sëñ Bamba da nga ma ngi lay plaider ma ngi lay ñaanal lu rëy rëy rëy ci sa borom te loo xam ne da nga sa jaamu yàlla du ko may ñetti wax fere ci biir wax fere li kulli muminin wa mumina maxfiratan li kulli xayrin mutmina sunu borom ki gëm tey góor wala muy jigéen maa ngi la ñaan nga jiggal leen jiggal goo xam ne dafay dëxëñ lépp lu ñu xam ne aw yiw la delloo ne ko wax fere li kulli muslimin wa muslima maxfiratan taasimuhum min zalama képp koo xam ne yaa ngi doxal sa lislaam di góor wala ngay jigéen maa ngi ñaan sama borom nga jéggal ñoo ñii njéggal goo xam ne nag da nga cay dugal ak sange woon nag sange woon nga xam ne yow bul tiit bul jàq dellu wax ne wax fir li kulli muhsinin wa muhsina magfiratan lahum taqudul xasana ñun ñëpp yiw yàlla rek la ñuy wër Bamba nee na yiw yàlla wuri yi sunu borom képp koo xam ne sóobu na di sellal tax euh, euh, muhsin nag ban ko laajee Muhammad sallallahu alayhi wa dafa ne abud rabbaka ka annaka taraa fa in lam takun taraa fa huwa yaraak kooku mooy ki nga xam ne mooy suufiyanke bi dëgg dëgg dëgg lu mu def xaalisan muxlisan li wajhi llaahi koy def def ko ngir ñu ne ah kii de moom aka bari xam-xam kii de aka mën a jaamu yàlla aka mën a wer déet déet da koy def ngir jëmmi yàlla ji rek sëñ bi wax ne nag yool bu rëy boobu joxal ma ko ñu sellal ñoo ñi te rafetal aw sellin léegi nag ñetti waxtu yooyu nga adat ko ba mu jeex nga ne ko tegg fii Sëriñ Bamba am na lu dëxëñ ci biir foofu nag bëgg naa fee doxal ak yéen tuuti rek ndaxte fa lillahi asmaul xusna fad'uuhu biha yàlla mooy borom tur yu sell yi dee leen ko ci ñaan dee leen ko ci woowu leen di may sëriñ bi nag génn ak asmaullahul xusna ci baree baree bari dëxëñ ko ci biir ay yooni yoon léeg-léeg mu jël benn béy dëxëñ ci allahu dëxëñ ci lii du ñàkk xëy na mu aw ci Euh, ndax damay bañ a guddal te seet nu ko gàttale waaye li wérte woon mooy sëriñ bi bi muy bind xasida gi bindul nii rek di wéy di dem dafa am lu mu ci jublu ndaxte ñetti béy yooyu nga xool ko yaa salaamu jàmm mu def ko ci trent cinq fois boo addadee ñetti béy yooyu ne ko teg ci balance bii fab yaa salaam yaa salaam yaa salaam yaa salaam ba muy fanweer ak juróom nga ne ko tegg ci balance bii mu pees noonu la ko sëñ sëñ Tuubaa liggéey kon jàmm jooju yi yàlla na sotti ko ci suñu kaw te bu sotti ko ci suñu kaw bu noppi yàlla na jàmm sax nanu bàyyi yàlla na jàmm yàgg loolu wóor jàmm du mu yàgg-yàgg bis bu dakkee dee mel na musta am Saddam Hussein jàmmam ji yàggoon na waaye ba mu dakkee jeex na Xadaafi noonu ji yàggoon na waaye ba mu dakkee jeex na sama bàyyi danaan dañuy wax naan yàlla na jàmm sax da ngay sax ak moom rek mu biir àjjana boo gisoo gis sëñ Bamba ak Cheikh Rafal gisoo Rasulullah baax bopp lanu ñun ñii benn bopp koo xar ñaar nee na du dëgg mënees na ko mënees na ko day ñaaw kay benn bopp waree su koo xar ñaar hmm? kon nag li nga xam ne eh, eh, faw may faw may eh, gàttal asilef ndax da ci am euh, ñetti bayit yoo xam ne wa tag fi naa bi zani kulla bi dafa jël xasida gi dugal beneen xasida ci biir gannaaw bu mu jëlee auzu billahi min xam ngeen ko dugg ci euh, ci ci ci ñaan ci dellu nag jël bismillahi rahmaani rahim wutal ko bopp tarjumaan wutal ko génn ba pare def ko nag fukki bayit ak juróom-ñett loolu doo doy moom sëriñ bi ñaan na ko ci biir xasida gi dal wax ne wahab liman yaqrahu maa yaxbitu bihi siwaahu yaa jamilan yunshitu képp koo xam ne yaa ngi jàngi xaside gi kese jàngoo geneen xasida keneen di jàng yeneen xaside yépp te jàngul xaside gii saa yu na xoolee day gis lu mu lay ñeewe yow Sëriñ Tuubaa wax na mm-hmm. ndegam nangu na ne moo bind xaside gi mooy wax kuy jàng xaside yépp laa wax te jàngul jaalibatul maraaxem kii di jàng Jaalibatul Maraaqib kese la wax te jàngagul ji si des saa yu ñu ko xoolee danañ gis ci moom luñ koy ñeewe man nag dama bëgg ñu ñuy ñee waaye bëgguma ñuy ñee kenn ñun yal na ko yàlla defal yal na ko yàlla defal euh, sëriñ bi dellu wax ne wax li man yaqrahu aw yaktubu xayral munaa xéewal ba xéewal jeex xéewal yi ca gën képp koo xam ne yaa ngi ko jàng ak ci jamono boo ko mën a jàng moom jaalibatul maraaqib sunu borom na ko ne cas na ko tegg ci loxo mu dellu nag indi dafa ak jalbu ci biir xasida gi dafa mooy mooy mooy mooy dox sa digganteeg lépp loo xam ne njariñ nekku ca wala ko lay bëgg lor la naf aw mooy ñoddi ñoddi lépp loo xam ne njariñ da caa ne mooy dafaw ak jalgu seen Tuubaa jël ko def ko ci bi daal ne wat dafa bihi parce que parce que wat dafa bihi qabla tawajjuhi lain ila siwaaya ila siwa qaarihi antal muin koy jàng xasida gii seytaane mënul ci yow tos mënul ci yow dara te seytaane kenn ku ne xam ne ci noonu mag yi la bokk inna cheytaana lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwa sëriñ bi delloo xam ne wàjju lu jal bongoog nga ñoddi li man yàqalewoo xayra moraat yaa man lépp loo xam ne lu ñuy sàkku la la ci gën xeeti xéewal yépp la ci gën rek sëñ sëñ Tuubaa nee na ki koy jàng na nga ko daal jox yow suñu borom boo demee ba ca mujj xasida ga am na turu yàlla wu màgg woo xam ne dégg nga dañ naan eh, moom sax akun xala un yesut ñu nga xam ne dugg si biir asraar yeeg neen nga jéggal de waaw du ma ci sore nag ndax waaw damay bañ yëkkati yenn kii yi sëriñ bi de nga ci benn ci benn bayit la ko dëxañ juróom-ñetti yoon ko ci dugal bu la neexee nga ne ah moom sax un xala bu la neexee nga ne xëy ka yaa tal masala yaa xew la ko loo yaa tal yaa waaye lépp dara génn ko boo diggee mag ñi di ko wax nag nga defee ñi dañuy caaxaan fekk lépp tur yàlla la waaye nag dafa sensible moom di tarsam kooku du ma ci dugg waaw waaw dama leen di ne xa gi lépp ci biir rek sëriñ bi delloo jël nag turu yàlla woo xam ne mooy ismullahi latif te danaa ne wax sëñ Fallou Mbacke li mu wax sëñ Fallou Mbacke nee na yaa latif foo koy wer doo bàkkaar doo bekkoor kenn du la bindal bàkkaar te saa yi poos bi danga fekk ci biir waaw waaw kenn du la gis mukk di la gërëm waaw mu ismullahi latif sëñ bi jël benn béy dëxal ko ci ñaar fukki yoon te vingt kenn ko ne xam ne ne am na am na tur yàlla wu mu jàpp yaa haadi ki nga xam ne yaay jubal nit bu mu jub xocc wala yaa waduudu soppe bi kooku moom jigéen yi moom ku ci am sa borom kër te di muy xaw a kër kii yooyu léegi-léegi rek wax ko eh, eh, ñaar ko yël ëpp ko ci loxo rek raay ko ay eh, nijaay nee na bu yàggee rek dégg nga mu nooy ñepp rek waaw ba tey ñu naan ba dooxu kuy génn bi tukki ndeysaan bind ko ci buntu kër ga kon lépp turu yàlla la sëñ bi jël turu yàlla bi tëgg ko ci turu yàlla bii ci bii nga xam ne ku koy wer doo bàkkaar doo bekkoo muy latiif bayit boobu nag hmm? bayit boobu mooy aska salaamay waahibal jazila ala nabiyi saaxibil wasila wal aali wa saxbi alladina faaqu kama bihi lam yanxali nifaaqu waxuma la sax dégg nga maam li mu dëxañ ci biir muy 129 latif darbu ko ci haadi wala ci wadoolu wala ci badooxu waaye ndekete moom boo ko jàng naafiq du la jege gis nga jàngkatu maraaqib képp ku ko jege di ko wut si di toog fi moom bu yeboo nga yëkkati loxo ba te kaw neen ko baax a ndax ku dul naafiq rek baax nga mu dellu jël nag fii yàlla mi nga xam ne moom mooy sunu buur bi nga xam ne ko am doy na sëkk soxlawul ngay leneen baa keneen baa mu dëmal ko ci biir moom it fanweeri yoon ci bayit bii ala nabi saaxibil fadila صلاة من قاد له تفضيلا والآل والصحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم dellu jël yeneen tur yàlla woo xam ne mooy yaa baaqi bu ñëpp demee moom dong moo fi des keneen du fi des mu yàlla sunu borom 113 mu dugal ko ci benn bayit def ko ci ñaar fukki yoon ak juróom xam nga ndekete bayit yi boo ko jël moom am xëpp lay doon dafa mel ne am xëpp nag béykat a koy xam sëñ bi am kat waaw moom baykat boo xam ne lar nag nga daan yor waxuma machine yii ah nga xam ne dégg nga am kii kii kii topp bi day topp bi bu dee nii kàmb su ndaw yow yaa ngi sa pot moom lañ la jox il faut nga ji ko ngay def par ñaar suur ak sa tànk topp ko rek léeg-léeg na nga gis nag ku la gën a jàmbaare fële te bëggoo mu mu njëkk laa jeexle nga daan ne bu la ne ñii ne ñii kenn gisu la nga tibb xëpp daal di suur def nga ci lu ëpp loola yow bëri sëñ ci bàyyi ay xëpp la waaye nag it alxuraan noonu la am na ci am na ci aay boo xam ne am xëpp la hmm? amaan rasulu wala ñu jël sax law anzalna hada alquran ala jabalin la raaytahu xaashi'an mutasaddian min xashyati llah wa tilka al-amthaalu nadribuha linnaasi la'allahum yatafakkarun huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa aalimu l-ghaybi wash-shahaadati huwa arrahmaanu rrahiim huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa almaliku alquddus assalaamu almu'minu almuhayminu alazizu aljabbaaru almutakabbiru subhaana allahi ammaa yushrikuun huwa allahu alxaaliqu albaari'u almusawwiru له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم lii am xëpp la ñu ne ma waaw am xëpp la waaw waaw tur yàlla yi si biir dafa bari gis nga nag sëriñ bi noonu lay def xasida yi maraqib gii xasida maraqib gii noonu la jël dégg nga tur yàlla xëpp ko ci biir boo ñëwee yaa baaqi mi salaatu man amana nii min xawfi ala nabiyil muntaqa si sayfi bala ma ciy dikk moom damay wax baaqi jii ba noppi sunu borom mooy albaaqi mooy ki fi sax sax fi dàq te du fi jóge ku fi nekk moo la fi indi ku fi jóge moo la fi jële ku fi ñëpp jóge moo fay des sëriñ bi jël tur yàlla moom yi def ko ci di nga mam ñaar fukki yoonu juróom ne ko salaatu man fii jàll wa usaar ala wasilati saaxibil isaar maa salaamin fii jamii al aali wa sahbihi fi lxaali wal maali salaatu ngoog na suñ baa ngi julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ko war a ndigal yàlla inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu sallu alayhi wa sallimu taslima julli leen ci yonent bi kooku foo ko déggee aaya boobu foo ko déggee war nga ne sallallahu alayhi wa sëriñ bi dem ba ca biir mu wax ne liggéeyub gaa ñu baax ña yonent yooyu jiitu woon awliya allah yooyu jiitu woon liggéey bu rëy ba nu defoon ci lislaam yaa xam xare la yaa xam téere yu nu bind la yaa xam dongo yu nu jagal la sama xas xasida gi ne taxaw boobu taxawaay boobu liggéey hmm? waaw waaw cey kay sëñ Tuubaa moom cey rek waaw waaw salli wa salliman ala almusamma bi saaxibi alxujjati yaa man damma wa alihi wa sahbi yaa man jaala xatti ka xidmati alxiyaari fan jaal yaa ko ko def mu doon ko sëñ Tuubaa euh, loolu stilim la jaal wan wa jaal mu ne ko fan jaal waaw def nga ko doon na ko dégg nga ko bii waxul ñaan daf na ko yow mi nga xam ne da koy woor sunu borom na ko yow mi nga xam ne yaa jël sama téere bii sama mbind mii def ko dégg mu mu mu mu mu tolloog dégg nga liggéeyub gaa ñu baax ña bul génne kenn la ñëpp ngi ci biir kon xasida jii nanu xam ne Serigne Touba dafa fooxalul sunu borom. naxul yàlla yàlla naxu ko naxul yàlla sunu borom waaye sunu borom mi naxu ko may na ko may yu rëy. am na ci benn bayit boo xam ne allahu moom la dëxañ ci biir allah sëñ Tuubaa wax na ne tur yàlla wi ñëpp di wër mooy ismu zaati nee na mooy allah bu doon sonn sëriñ bi jël ko dugal ko juróom-ñeenti yoon ci biir xasida gi ci biir benn benn bayit mu def ko ci neuf kenn ku ne xam na ne booy wañ baax dafa dégg nga maam mooy chiffre bi gën a rëy ci chiffre yi <coughs> zéro ba neuf boo fa agsee da taxaw beneen chiffre boo am bu doon quatre vingt quinze mille neuf cent quatre vingt quinze doo weesu dégg ci yooyu yi rek yu ndaw ndawaan yooyu ngay jël di topp sa ba mu mat loolu waaye neuf moom moo féete kaw lépp sëriñ bi jël neuf mi féete kaw lépp def ko allah mi féete kaw lépp ci biir xaside gii nga xam ne man man laay waxal de moo ma féetal kaw xaside gi mm. loolu kat sañ naa ko man waaw ndax am na ñoo xam ne si lii di ña nga ca mm. waaye nag lépp bu leen fàtte li ma leen waxoon léegi boo ci jàpp te dëggal ko yëpp fekk si na seen gi mm. rek sëriñ bi daal di wax ne maliku yaa quduusu yaa azizu maliku 90 yaa quduusu 410 yaa azizu 94 soo ko boolee ñaata la juróom-ñeenti allah la boo waxee loolu rek yaa ngi naan allah allah allah allah te loolu nag lu làmmiñ di tudd moo ci gën laa ilaha illallah li muy rëy rëy rëy rëy allah bi ci biir a tax subhaanallahi li muy rëy rëy rëy te am doole allah bi ci biir a tax alhamdulilahi li muy baax baax baax allah bi ci biir a tax subhaanallahi li muy baax baax allah bi ci biir tax jaamu yàlla na ak sikkar lu bari bari bari te loolu bokk amu ci amul solo waaye lu mu néew néew néew ci allah ne ci biir am na solo sëriñ bi jël ko déngam dëxan ko ci biir chiffre bi gën a rëy ci chiffre yi maliku yaa quduusu yaa azizu salli ala man ismuhu azizu sëriñ bi julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu wax ne salli wa sallim xaaliqal asmaani ala nabiyi alami al imaani wa alihi wa sahbihi washghalni bima tuhibbu wasta'id anni na nga ma def may ko texe waaye nag naa xam li nga bëgg ma nekk ca te xam li nga bañ ma moytu loolu nag war nañ taxaw tuuti ñun ñii ñun ndongo yi sang si de ñun laa wax góor góorgóorlu ba ku tuddoo Serigne Touba ku ne xam kan mooy Serigne Touba ak lu mu bëgg ci ñun Cheikh Rafal leeral na ko Cheikh Rafal nee na tali bi didi didi didi du tooñ te ko ko tooñ mu jéggal nga wax bi doo tooñ te nga jéggal ko ku nangu wala xam foo dëkk foñ la boo amee jot seeti ko siyaare ko boo boo ak soon mu gëdd la sax na lan la nga ne ko dama laa gëj a dégg rek gëj laa gis rek te doon la siyaare si doon nañ ko ba xam ci yaa ngi ci jamono bi koo xam ne bëggul nga am dara bëggul nga yor dara boo amee yow jox ko koo xam ne dafa bëgg rek dégg nga maam lu nga échoué soo ko mënee dimbali moom ba mu réussir def ko ab murit yombul danoo wax ne saalix bi moom la ñuy seet mooy Baye Fall bi le Baye Fallisme c'est la forme la plus parfaite du mouridisme moom la Serigne Touba defar ba mu mel ni mel moo ko tegg ne man maa ngi fii ne ku bëgg ak si man awal fii doo rëy doo nay Cheikh Fall lu mu mën a am jox na ko sëñ Bàmba du rëy képp ku takk ci sëriñ bi waxuma la sëriñ bi waaye ku takk ci moom bu la gisee na muy def moo lay xam ne di nga am kii ak rëy dal ci moom dayratu awliyaa Allah yi na képp jikko soo ko dee war wër ko ci biir dayra boobee soo ko gisul ci biir wëral ci bunt yi wër daayira bi mi ngi fëgg te léegi ko jikko yu doy waar kon nañ ci góorgóorlu laa ilaha illa allah nag muaz ibnu jabal muhammad sallallahu alayhi wa ko waxoon ne ko muaz ne ko wax laa ilaha illa allah xaalisan muxlisan daxalal janna bi illa allah ku ko wax te muy dégg ci yow da nga dugg àjjana te kenn du la isaam mun na ko teel ma ko wax gaañ mun na ko di bàyyi noonu damay bañ ñuy yafus toog na fi ba Muhammad sallallahu alayhi wa moom ci boppam mu toog fi dégg moom ba feebaru ndee dikk mu ko nettali wax na ne làmmiñ wii sunu xare gi ko ci biir la moo tax mooy le message la ilaha illallah mooy message bi sunu borom jox yonent yëpp yàlla kenn la nañ ko jaamu kon bu nu xaree gi miñ jëmbat ci làmmiñ baatab laa ilaha illa moo tax bu loolu jàllee nag ngay digle lu baax te nekk ca di ak safaan te kenn du la ca gis loolu mooy tax nga bokk ci xeet yu jëm ci xeet yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar yàlla ci yàlla boole yàlla ci yàlla boole kon ñun donga yi bu nu góorgóorloo bay jàng jaalibatul maraaxib tamit nanu xam suñu cër ak fi nu sëriñ bi di xaar Europe ñu nekk na kenn ku ci nekk ambassadeur la képp ku ci xëy wax bal nga xëy jëf lu tax ko bëggoon yoon wi dégg nga maam dégg nga du muuyu yow liggéeyoo saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain asi asi wax na ne mooy fi ëpp ay jullit ci kaw suuf mooy fi ay ëpp ay jumaa ci kaw suuf ñett saxaabe yi ñoo fa nekkoon yoruñu woon ab yar di dóore yoru woon kalachnikov di ko di ko dóor nit ñi wala ay bomb seen jikkoy bopp ñu noote ñëpp bu waxtu julli jotee di ñu dem sol yu set di xëy lu neex di wax ndànk di dox ndànk ku ñu jëflanteel duñ la war mujj ñu ne waa ñii ñu mu doon ñu ne ñii dañoo xeetu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye man ñii man bëgg naa leen di nuyu dafa bokk ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah nga day tàbbi ci biir kon baat boobu baat bu rëy la sëriñ bi jël genn benn béy rox ko ci ay yoonu yoonu yoon tey ko duggoon fii léegi léegi ne sëriñ Bousso damaa bëgg a tuub kenn du ko ne kaay julli kenn du ko ne kaay woor kenn du ko ne kaay tasaka xam nga lu ñu koy wax kaay sikkar kaay wax laa ilaha illa allah muhammad rasulullah boo ko xasee ba wax na kenn mënut koo génn ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon boobu baat mooy miftaaxu diin mooy miftaaxu janna mooy caabi ji nga xam ne mooy ubbi diinee muhammad sallallahu alayhi wa xam ne yàlla ko jox bi indi ko waaye mooy ubbi tamit buntu àjjana yi te kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi ci boppam wax na ne dégg nga maam laa ilaha illa allah moom sunu borom teral na ko ci kon bu nu tuuti am na turu yàlla wu ñuy wax yaa mutaali yéen yi nga xam ne da ngeen ay étudiants tey jàng ndax wax na ma daay bi étudiants yi bari na ci te képp koo xam yaa ngi jongante yaa mutaali ci seen borom moo lay tong mooy tonge waaw. 551 hmm? bi ko ci ñaata yoon chiffre bi gën a mag ci chiffre bi dama lay waxoon neuf mu def ko ko juróom-ñeenti yoon. dëgg ko ci biir daal ne yaa rabbana salli ala maxsuusi bil azzi wal majdi ala maxsuusi bi بشرف العالي وسلم سرمدا بلال وصحبي وكل يحمد sama lépp gërëm ko jaalibatul maraqib mooy mooy xasida goo xam ne boo koy jàng te te mu làng te nga ko booy nawle yaa ngi ci jaamu yàlla booy lekk yaa ngi ci jaamu yàlla booy dox yaa ngi ci jaamu yàlla boo yëngoo yaa ngi ci jaamu yàlla boo dalee yaa ngi ci jaamu yàlla sëriñ bee ko ñaan sëriñ Tuubaa ko ñaan te eh, ngëneel moom la ñuy wut te ngëneel moom danoo wax ne jëf a koy maye sëriñ bi wax ne xasida gii bu jëf yëpp teewee sunu borom jëf gi gën ci jëf yi na doon xasida bi صلى مع تسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل jëf yëpp ba ca gën na doon dëngam jaari ba ta mu wax na nag ngërëmal yàlla foo gis ku baax moom lay wër waaye nag danoo ëppante dafa mel ne tey jii diplôme la luy wër waaye diplôme yi danoo ëppante tey jii boo duggee université ay étudiant rek lay tudde donte juróom benn weer nga fa defagul ki nekk deuxième année étudiant rek lañ koy tudd waaye bokk rek ci septième année sixième année nag. awliya Allah yëpp noonu la nag. boo tàmbalee mën ngaa doon wàll yi dégg nga bokk ci fii waaye nag ay marati ay maratib la waaye ridwanullahi al kubra mooy ngërëmal yàlla li gën a rëy Serigne Touba nee na xasida gii na ko doon xasida jaali bu tan maraq salli wa salliman yaa jamilu yaa man jafi te fii nag da koy dagaan nag mënoon na rek wajaan waaye wan nga la waaye sunu borom. ndeysaan sëñ Tuubaa xool yërëm tër dafa xam kilifa gi ñaan ku mu doon sëñ Tuubaa dafa xam ne sunu borom boo ñëw ne ko ràtt poñ naan ko eh defal ma nii wala may lii booy boo koy wut si wala neex nga bàyyi ba ñëpp tëdd nga jàpp ba set toroxlu sukk di ñaan bay jooy mu ne ko waltaj ali nas ma ak bara redan yan jaay boo ko defee na ko doole na ngërëmal yàlla li gën a rëy ndekete mi ngi nii mooy jaalibatul maraaq sëriñ bi lépp loo xam ne ñaan na ko sunu borom may na ko ndax xaside gii moom dafa fa saytoo ko liggéeyam kon sunu borom Cheikh ma sëñ Malick Diop bu Kayaar sëñ Fallou Mbakke ko jagaroon defar ko yebal ko jandeer mu fay def ay ay kiimaan yu doy waar benn bis ndeysaan mas na noo toog nii rek Eh, dégg nga am ku ñëw dégg nga fekk booba mara yër la toog de nga ci tefes gi ne kii si moom nag sëñ Tuubaa rek ko nii rek fu ñu toog sëñ sëñ bi rek lay waxtaane ah, dafa bari ay ay ñoo xam ne duñ taalibe ne ko jàkk dina xool mu jàkk mu ne ko yéen ay musal kii na ngeen rek kooku yéen ak ki ngeen di waxal yëpp bu ngeen faatoo sa war a ngeen jëm laa ilaaha illallaah sëñ Maalik Jóob na war leen mën nan xool war leen mën nan waaw mu pàkk Tuubaa man na moom mën na pàkk Tuubaa laa ko tudde Ndiaye tooñu mu ne xool leen montre yi timis ñaata minutes moo ko teesoo ñu ne 17 minutes mu ne bu ko fekkee ci suuf muy dox ma xàcc ci suñ si fi koy wate dégg nga maam bi mu daa ne dall baan ñu ne biir baay metti ñu ñëw di ko mu ne leen day dee bu dee àggale dégg nga maam wat gi dégg mu dillu si ñu dillu si ne ko sa waaje dee na mu ne ko ko suul na ñokkat juguti këram na ñokkat juguti këram fa lañ ko baax ba ca ëllëg sa ca tisbaar magam joo xam ne ilimaan la ci fële ca cene ba tërëfe fa ànd ak mbooloo mu bari ñëw jub sëñ Malick Diop na ko Diop tidlu ci sëñ Bamba amul morom waa këram amuñu morom ne na ma Cheikh Ibra lii moom a giif loo bi mu waxee ba àggal ba noppi mu ne ko waa Diop man de am na loo xam ne xaw na maa yéem damaa gis ne man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam képp koo xam ne rey nga jullit te tey ko a nga jëm mun ma waa góor a waay Cheikh Ibrahima yow lii tax na neex a waxal waa ji reyu ma ko dama ko waxal koy dal <laughs> waaw reyu ma ko boo tabaxee sañ sayer ñi bu tabaxee këram ba ba mu mel na mu mel ca njaamoo ah mu def ci ñama ñama yoo xam ne dégg nga maam koo xam ne daa bëgg a dugg ci biir kër gi awul ci bunt bii fëggul ba nu ubbil ko mu bàyyi ba xaaju guddi mënul diggam di aw ci kaw loolee law yi biiram bi dégg nga ne na mbàq gi tëdd ni ci suuf nga ñëw fekk ko fa ne ko yow kat da ngay diyee waaye rayu ko kat da yëpp ngay ràcc-ràcc koo mun a sëñ Bamba ilaa Touba rek sari am na booy demati Touba bu nu yet yeti bu màggal jotee nañ ciy góorgóorlu bu koy defee tegi dikk ne na nga bar sare an la sëñ Bamba wax waxul ilaa Touba rek sare an ilaa Touba sare mooy da nga cee boole gaawtoo ak farlo yoon wii nag lépp lu ci waay am farlo la ko may dama bëgg ñu xam loolu l'islam bii ñu ngi tudd Ababacar Omar Ousmane Aliou këy laa xaala day ci la waaye du lépp passif bu du woon a passif di maam raay bi taxaw Cheikh Moustapha du ko taxawal ak am passif mbir mu toll na Sëriñ Bamba jóge fi nga dijju doxal mbir mi te dara suutul ko kenn du moom sëñ Fallou Mbacke dikk parce que tax da nga mu àggale daal di wax ne seen yaxam jumaa ngi xam nga lu mu daan waxam sëñ Modou Abdoulaye wax nga ko léegi moo jur jëm jeetoo moo fi woote dégg nga maam kër xam te jàppale ko ci ndaxte kër Cheikh Rafal kat waañ la war a doon ci kër Serigne Touba gii ak lépp lu nu fii mu jëm ci mos dugub ñoo ko fi indi bu jëmee ci koppar ñoo ko fi war a indi bu jëmee ci ak coow ñoo ko fa war a indi boo amee ku nu génne bitti ñu mën koo fab ca kër ga bu amee sang bu dikk man koo teeru teral ko gunge ko buy dem waañ la war a doon doonte déngam dafa rëy rëy ba ton ba nu ko neex waañ la war a doon ci kër sëñ Bamba gii ñaari téeméeri euro yu ñuy jël trois mille yeeg mille cinq di ko jox naar yi juif yi war na noo góorgóorlu ba am sunu saalu bopp boo xam ne buñ ko amee ñun ci suñu bopp dinga nga mën nañ koy luyee te lu ñu bëgg ci di nga ci xew-xew yi di ko fa def moo ko fi wootee dama ànd ak woy juróom ñu dem Linguère barkee ji daara Lincoln boobu bi nga xam ne dongoy américain dañ ko joxoon ñu ànd ci ma nekk waxtaan nag mooy yéeg ci lu ci yoonu wax leen ne Pastef rek mooy mbir mi mag ñi am na jamono boo xam ne dañ naan wax naan nan ñaari gone nu ñuy defar seen juma laa leen ma ñaari gone ñe la sëñ Modou Moustapha Mbacke sëñ Fallou Mbacke àggu Sëriñ Bamba lu mu bëgg mu àgg ñaan la ko ci xasida Jaalibatul Maraaqib ji moom la yëkkati sànni ci ndox mi ndax ndax samay mbir yëpp dana jagam diin sunu borom xamal na ne ko dingam lépp jàng la kon dingam ñaari gone yooyu ak ñuy mag sëñ Bamba dëkk nga xamul lu mu doon rek ba ku nekk ci kanam di gone ba mu Moussa Ka wax naan moom àddina daal dafa day bëgg a jeex am gaa ñu baax ñiy bëgg a jeex am mbër yu ndaw yiy bëgg a seex booba ñun ñii taxul ñuy wax sëñ Bamba ku nekk fi moom doon mbër mu ndaw hmm? kon nag nanu góorgóorluwaat te takku te xam ne Pastef moo fi maye lu ne mag ñi àndoon ak Serigne Touba ba mu seexal leen kenn ku ci nekk Pastef a tax nga am la nga sëñ Bay eh, Jaxate daan loo xam naan dégg nga bo bo boo tër bii te te te te kenn eh, maanaam yéwee bu la amagum ngërëm daanaka kër sax waroo ko samp ndax tey jii boo yëkkati woon dégg man ab junni ba ko jox sëriñ bi ndaw si dégg man daw katafu la lii priorité ko def ñaari téeméer te moom boo ko joxee ñaari junni mu xeeb ko na am fulla te xam ne lii sëñ Bamba indi bàq ba tooy le loo ci jëmbat mu jebbi man dafa am ñaari aaya ci alquran yoo xam ne ci laay nette dégg nga ma murid bi wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu lu ngeen joxati ngir jëmmi yàlla ji man yàlla maa leen koy wuutalal maa leen koy remplacer te du ngeen ma jox benn nag ma leen di delloo benn bu ngeen ma joxee benn nag ngeen junni ba lu ko fopp la beneen bi mooy wa maa anfaqtum min shay'in fa li ngeen joxati ngir sama jëmm ji yéen a ko moom nekkate koy nay sa bopp ngay soxla Cheikh Ibra Fall moo déggoon mbir mi moo toog mu jàll mu kër gi ak li ci biir kër gi yëpp la ilaha illallah la ilaha illallah Fall la ilaha illallah jërëjëf baat boobu baat boobu danañ ci tuuti te xaaral tuuti rek waaw ah, euh, timis gi euh, euh, dafa am benn turu yàlla bu ñuy wax yaa waasiu yaa waasiu gis nga mbir dafa war a yaax kon sëñ Tuubaa mii sëñ Tuubaa nee na sunu borom sama barke bi tasaare na ko ci àdduna yaa waasiu mooy sunu borom bi nga xam ne moo yaata daj fépp foo dëpp sa jël rek gis yàlla fa ma tuwallu fa thamma wajhu llaha inna allaha waasiun alim sunu borom bi nga xam ne moo yaatu ba pare dégg nga maam xam lépp tur woow wii nga xam ne dégg nga maam moom lay moom la Sëriñ Tuubaa jël dëxañ ko ci benn béy ba pare dégg nga def ko ci fukk yoon la muy yaaman bi lam tanxanil futuun salli ala man ismuhu matin yow mi nga xam ne ci sa barke bi ci la ma fitna yëpp teggee gis nga jaalibatul maraqib kenn du ko jàng di am fitna hmm? dégg ngeen wax bi de kenn du ko jàng kenn du ko jàng di am fitna waaye mu ne ko nag maa ngi lay ñaan nga julli ci mu julli ma ci ma ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan lay doon ci moom moom mi nga xam ne mooy matiinu tur woowu la ko jox cinq cent moom des na ko moo ci ndigg luy métti juróom fukk rek yaa matiin yaa matiin yaa matiin moom juróom fukk ndeysaan nga war du dëgg kon tur woowu la la Muhammad sallallahu alayhi foofu xamoo tax mu tudd ko le ferme nit day am fulla am faida te farlu ndaxte mission bi ko sunu borom joxoon muy diine lislaam ji farlu na ba mu taxaw ba ñun ñi tey ji ñu jot ci kon alayhi salaatu wassalaam yal ko yàlla fayal moom dong nag la suñ tubaab doon liggéeyal awe ko sunu borom lay liggéey waaye awe ko ci moom ndax ñoom dañoo wax ne sax ci njëlbeen sëriñ bi def ne bëri jub bëgg wuti suñu borom mel mel na ci masala ci ci misaal da koo da koo fett su mun a taxaw mu am lu mu ko joxoñ bu mu geesoo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la gis moo tax mu ne dalla ni allahu ala muhammadin wa qaada di muhammadin li samad dalla nag ak qaada bokkunu dalla tegtal la qaada téy sa loxo bi wommat la ba ca yàlla foofu dafa am lu mu fi niroog Cheikh Rafal tuuti dalla ak qaada tegtal gi Cheikh Ibra mas na xibaar ak dibloo bay wax ne yàlla ma ko moom moo ko ne Bàmba moo la moom loolu nag boo ko waxee da nga am sunu mbokk ñuy jàng jàng yu yees yi te dikk da nga am bëgg bëgg dal ci mag ñi ñu ñu ñu ñu ñu ne mosule kii na nan te tey jii boo ko nee lii li mu doon mën a ay sama kaala la wala lii li mu doon a sama montre la wala lii li mu doon mën a samay lunette la wala lii li mu doon dégg sama portable la sama sama ji dégg nga bari lool ci dundu yàlla bii sama kër sama doom sama soxna sama oto dumut yàlla ji ma ne la yéen yéen a bëgg def loo xam ne mag ñi seen tubaab yar bu leen déggoon dañ naan daal daañu xam ndax yéen yéen ñi yéen a musrikiina yàlla moom lépp nag waaye ku nekk nag àllam la moomale ah alaaxira kenn mënoon fa ni dara fii nag alaaxira kenn moomu ko maamu kenn moomu ko waaw fii nag te séddale nañ ko ba mu jeex takk ay parcelles. parcelle boo bëgg a teg sa loxo nit dikk nit nit dikk ne la dégg nga am sama kayit ngi maa ko moom te bu ngeen demee dégg am tribunal mu yàlla la noonu la demee fële yàlla moom moom lépp waaye nag am na ñu ko moomale am foo xam ne ñoo xam ne ay ay kër kër lañ fi ñoo xam ne amuñu benn kër fii lépp la demee kon nag nanu ànd ak ku ñu rus ku ñu rus mooy Xaadimu Mustafaa nan ànd ak borom ngërëm lu rëy li fexe bu mu gërëm nu sëñ bamba nee na ngërëm ñaari yoon dong la da ngay takk sa digg yi yéeg wuti sa borom nee na boobu nag ñëpp xaju ca déedéet nee na seetal ku am ngërëm rek nga góorgóorlu ci moom bu la gërëmee yàlla la gërëm ku am ngërëm ku ne ku mu gërëm yàlla la gërëm kon yaa moom la dugal ci biir fukki yoon pour wax la ne sëñ Tuba xaside gii bi ñu koy bind bindul nii rekk di wéy bind ko rekk di wéy dafa am lenn lu ci ne ak la mu dëxëñ ci biir xasida yi nag martaba la ki fi ko am mënu koo jàng di ko lekk te jox ko worma di ko teg fu sell du ko laal te sellul ba tey baax na waaye am na lu ko gën fexe ba man koo jàng waaye am na ko gën fexe ba man koo jàng xam li muy firi léegi nag la ca des nag moom ñu moo féete kaw lépp na kooku moom sëñ bi lay baaxe rek ngay jàng baax si benn béy mu mel ni def na ne tekk te yër ko nga ne tekk yër ko de bu ko defee naan naan rek. bokk tey jii ku nekkoon ci biiram ne léeg-léeg mu ne waa kii kii kii ci moom ku mu doon borom est-ce que yu juree ji fekk booba nga moo la moo la wuññil loo xam ne yéem na la lu dëgg kon xasida yi bu leen fàtte ne mën na léegi am xëpp lay te basmala am na lu ma leen ci wax sànq ne dafa jël. xasida dugal ko ci biir xasida gi waaye bisimilah rahmaani rahim am na noo xam ne boo ko ne addadee mille vingt sept la mu jël ko juróom-ñaari yoon mu mel ne bis bu nekk da nga ñaa ngi koy liggéey mu def ko di nga ci biir am na foo xam ne sept cent quatre vingt sept lay doon saf zone waaye nag loolu beneen kii la mille vingt sept yi wér na sëriñ bi jël ko dëxañ ko juróom-ñaari yoon dugal ko ci biir xasida Jaalibatul Maraqib salaatu zil arshil azimi xam nga sëñ bi yàgg na doon dégg salaatu ala nabi waaye yii façon tëj gi ci sëñ Bamba rek lañ ko gisee salaatu zil arshil azimi al akrami ala abil qasimi zi takarrumi wa alihi wa sahbihi maa salaam kama bihi maha dalala wa dalaam hmm? réer gu réy géeg lëndëm bi moo ko fi jële waaye tey boo ko firee firam kaw li sëriñ bi dëxëñ ci biir mooy bismillahi rahmaani rahim te awoon naa sànq ci ay ngëneelam mu fab ko dëxañ ko ci biir ay yooni yooni yooni yooni yoon lii nag bu nu bañee guddal ab rekk la ndax waxtaan la waroon a doon woo xam ne mën naa doon cinq de temps ndegam dañ cee gën a xuus fi ñu toll nii bari na ci yoo xam ne dégg nga maam xaramatoon naa ko waaye maa ngi jégalu ndax guddal naa waaw guddal naa guddal naa te dara waral lu ko lu dul rek yéene bu rëy kon léegi damaa bëgg ngeen dimbali ma rek ñu taxaw foofu waaw yaara zàqu nag sëriñ bi jël na ko fukki yoon def ko ci benn béy te baax na nag risque baax na waaw danoo xam ne yaa rasdaqu risq lii day defe ne xaalis rek la waaye du xaalis rek almaal bu ñu ko waxee dafay na mooy xaalis waaye risq moom gudd fan ca la wir ca la wir yàlla na yàlla la gis nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam mas nañ koo na loolu féete kaw mu ne ah xanaa alxuraan ak diine yàlla tax ma dikk ñu ne ko waaw ndax lii am na loo ko féete kaw mu ne en ah, kay dugub jigéen yi mos ba dëgër mën a taxawal faratay borom bi Cheikh Alpha dikk na dabe ndam bala ñu du jàkk yi dañ duy koll yi ba noppi ñu ne léegi dugub ndax am na lu ko féete kaw mu ne wér lu yëf yi neex neex neex te bari boo wérul <laughs> na soo naa ah bu neexee ba noppi nga wér yàlla na nga am jàmm jàll na ko tal bu kenn ñëw naan la kay wuy fii kay wuy si kon jàmm ndekete mooy sunu islam bii mooy salaam mooy la paix ko waxee woon na ma dagg ko fii ndax xaside euh, donge yi mooy waxtaan ak ñoom ci xaside yi mën naa bañ a doon benn yoon mm-hmm. mën naa doon ay yoon yoon yoon comme que euh, sàkkoon nga loo lu mel noonu na ñu ñu def ko ci rek ndax dal na ma lafaal sin si xadifaal meli ñu dem fa jàll Saint-Nazaire jàll euh, Nantes bi ma ñëwee xool mbooloo mi taalibe Sëñ Tuubaa wala ñu koy tudd bu bari fi lool sëñ bi ndax euh, mariage mixte yi ñi jël nañ ci jigéen ñu xonq ji ba góor ñi toog nañu jël ci jigéen ñu ñuul ñi te ay doom nga fa yoo xam ne ay métis lañu war na leen jàngal alxuraan war na leen jàngal dégg nga moom diine war na noo xam kuy Sëriñ Tuubaa war na noo xam surtout nag kuy Cheikh Rafa xam nga du ko war dafa. Cheikh Ibra Fall da maanaam dafa gaaw ci gaañooñu kuy dugg si ku nekk dégg nga da ngay daay daw rek da waaw ndaxte cofeel gi gi sëñ Bamba am ci moom moo moo ba koo gis bëgg ko ku dégg mbiram bëgg ko waaw Cheikh Moussa wax na ko nee na kii ëpp na leen réeram gu euh, leeram gu rëy gi war na leen te loolu sëñ Bamba ko waxoon dem na ba gën a bokk gën a doom moom Cheikh Ibra Fall te bu ñu koy waxee ñëpp a ngi fi te kenn weddu ko léegi nag ku jugg daal di dégg am saqal njañ rugoo course yu bari am ci ñoo xam ne léeg-léeg ñu jëfandikoo loo xam ne amuñ ca sañ-sañ baa ñu jëfandikoo loo xam ne am puux la wala dafa am ñu tëdd koo xam ne dégg nga maam lewu leen ci Cheikh Rafal àndul àndul tey àndul ëllëg Cheikh Rafal dafa sell sëriñ Tuubaa de li wérti wër mooy doon maslaa lu dol ne tarafatal ay ni ci lu yàlla ànd bu fa bee si dafa taf ci boppam di ko woo bu njëkk mu di ko laaj mu di ko jox muy xamal na yàlla ànd na ci kon dañoo xamul kan mooy Cheikh Ibra Fall nanu jàngi Cheikh Ibra Fall yalwaan gii ñuy wax di bëgg a rey nit ñi yore sa këll bëgg leen a rey Cheikh Ibra Fall ci am na góor goo xam ne danaan def bu xëyee dem ca marché ba bu yalwaanee jox ko xaalis jox ko dugub jox koy ganaar mu dikk ci frontière bi nga xam ne fi la Cheikh Ibra Fall di waxee ak jaam ñi mu wax fa bu ubbee mu dikk joxe addiyam Cheikh Fall ne ko ah bisimilah jàmm ah lii doon mu ko waa lii di addiye la mun jëlee mu ne ko damaa waroon ci marché bi doon ko màjjal mu ne ko ah yaa doon wër naan ana koy defal yàlla mu ko waa waa Fall ah ñi yàlla jox ngay indi mu ne waa waa Fall ah boo liggéey bu lay fay ñu yàlla yow duñu lay ah dafa leen liggéey doon liggéey gën a wóor kon kii il faut ñu xam ku mu doon ak col ak col li mu ci sol ñu di ko gis ba sunu jamono tey jii à l'aube du troisième millénaire ko sol dem Touba dem Palais jiital da nga am jàmpot bu weex tàll teg ci da nga am grand bu ñu ko kaalaw wax daa dëgg kay sol sa mbasin bi nga am da nga am bor loxo ca gannaaw di ak di góor góor yàlla gu àgg tey àggale ñu bëgg dégg am fu nu taqee dégg am bëgg ko tudd gis nañu sax jigéen joo xam ne léegi ñëpp léegi da ngay jigéen ñoo xam ne dañuy taxaw di di si karaka def ñu xam ne mu doon dugg ci biir ci ci biir góor yàlla loolu mooy lan loolu Cheikh Ibra Fall mosu ko nangu am na soxna soo xam ne soxna sara bala woon su neex baat yëkkati muqaddimaatul am ndaax ca kaw Cheikh Ibra nag fu mu mas a jub di dem mbooloo lay àndal mbooloo mu mu fekk fi bare yóbbale lii bi mu dikkee dëkk di nga maam mu mu mu jàng muqaddimatul am ndax bi sëñ Tuubaa bind mu ne hee hee kooku lu muy def ñu ne ko ah, faal day day jàng de mu ne noppiloo leen ko bu dagaloon ñu noddloo ko ah noppiloo leen ko bu dagaloon ñu noddloo ko kon jigéen ñi nañu xamaat seen cër bu baax a baax te xam ne leen war mooy ni ñuy def nii sol lu yiw toog yor sa kurus nekk ci jaamu la koo xam ne yow jullit suba da koo war a wax ca kaw ñëpp dañ ko war a wax ca kaw di ko yaru di di di ko di ko biral kenn di ko yaru waaye boo boo ko biralee dégg nga moom jullit yàlla di laa wax de allahu subhanahu wa taala mi bi di ngeen la ko ñun de dañ koy wax ca kaw waaye yow yàlla bëggul nga wax ko ca kaw noppi wax ko dànk ci biir kon leneen taxut a wax kon nag bu ñu réer bu ñu réer ndaxte kat ñu nu àndal réer nu bu nangoo réer nanu góorgóorlu bu baax a baax wax naa ko sànq euh, la euh, le bayfalisme c'est la forme la plus parfaite du mouridisme il faut savoir que Cheikh Ahmadou Bamba il a amené une philosophie et c'est pour euh, que toute l'humanité se retrouve un jour au paradis puisse vivre un jour ici sur terre et d'une manière éternelle mais une vie calme et paisible avoir la paix avec son Seigneur, avoir la paix avec l'environnement. Un vrai mouride ne doit même pas couper une branche ni une fleur sans en avoir le besoin. romb garab rek dagg ko te yow amoo ci benn utilité du sotti booy def du leneen nee na xaraam na ci yow sëñ Bamba kii xam nga kon bëggul kuy il faudrait Euh, ni ko sëñ Issa waxe euh, ma ma ma ma ma laaj ñu euh, baate nasaraan noonu mu ko waxee rek ngir ñi nga xam ne e danoo danoo ngir internet bi ndaxte l'islam c'est la paix comme je viens de le dire Cheikh Ahmadou Bamba il a vécu l'islam dans son essence avec excellence il n'a jamais confondu Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur suprême, avec quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Allah, c'est le créateur suprême. Il a créé des êtres humains ou des êtres supérieurs, comme on le dit, qu'on appelle les prophètes, à qui il a donné un message pour le peuple. Mais après ces messagers-là, ça a commencé avec Adam et ça s'est terminé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, ce qu'il a amené, c'est l'islam. L'islam, c'est prendre tous les prophètes que Dieu a envoyés. Ce sont nos prophètes. Prendre tous les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit l'évangile, la Torah, les psaumes de David, que ce soit le Coran. Ça fait un tout. Les prophètes constituent le gouvernement de Dieu sur terre. Ils sont solidaires. Si tu en exclus un seul, tu as exclu tous les autres prophètes. Et si tu as un seul livre, tu as exclu tous les autres livres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Jésus c'est mon frère. Nous avons le même Dieu et la même mission. Mener le peuple vers le paradis. Moïse, Abraham, ainsi que tous les autres. Tu ne peux pas être un vrai musulman si tu te dis, moi je ne crois qu'au Coran, l'Évangile, la Torah, tous ces livres révélés-là. Non, il faut tout prendre. C'est ce que nous a appris Cheikh Ahmadou Bamba, lui qui a appris avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut savoir que l'islam, ce n'est pas que la prière. Ce n'est pas que le jeûne du ramadan, mais c'est un... Je voudrais euh, utiliser un terme euh, qui me passe à, euh, à travers les neurones, mais c'est une forme de vie, c'est une manière de vivre. L'islam, c'est une manière de vivre. On l'a dit tout à l'heure, Cheikh Amadou Bamba, il disait, le vrai mourit ne doit pas causer du tort ni à son prochain, ni à son Seigneur. Et celui qui te cause du tort, tu lui pardonnes. Celui qui ne cherche que ton échec, fais tout pour l'aider lui à réussir.